lii ñetti waxtu di 15 heures jot nañu dikk ci xibaar yi. laajte quoi ndax ñun si nawet lañ nekk wala. mu ngook li gën a fës ci boppu xabaar yi doore kook leader bu gëm sa bopp Bougane Gueye Dany démb la ñu ko daal di investir ca la nga xamante ni bi rek moo ñeel wàllug euh, lii nga xamante ni bi rek mooy élection présidentielle li ñu jëm moom Bougane Gueye dani nemeeku nañ ne jot naa fësal programme am jëm ci li nga xamante ni bi rek moo soxal réew mi ak itam lépp luy démocratie delloo ko ci diwaanu Sénégal ab déere bu mu bind daal di koy tënk ci ñaar téeméer ak juróom-ñeenti xob yoo xamante ne moom Bougane Gueye Dany nee na rek doon na solution ngir amal ak réew mu mucc ayib ci diwaanu Sénégal ca Kayaar foofee itam askan wi nekk jamono ji ci njàqare ndaxte ñoom ci collectif la ñu daal di bokk ñu duppee ko taxawu Kayaar nee ñu lu soxal rek ab usine bu ñu duppee Barna Sénégal moo fa nekk leen lëmbee jamono ji ndaxte xet gu nga muy génnee boobu la nag li muy yëngu bokk na ci coppi ay jën te nee nañu daal nu tëj ràpp lu ko mooy rek seen wér-gu-yaram dina mbee ci leeral yi itam da ngeen ci teewlu ci jotaay bi ci yaatal la ci diwaanu ndargeec foofee jàmm am diggante nappkat yi nekkee ca diwaanu Kayaar Mboro Fass Boy ak Guet Ndar loolee mooy bëgg-bëgguk euh, CLPA bu dëkk Maam Kumba Bang foofee la ñu amal ab ngir waxtaan ci lépp loo xamante ni ñeel na jàmm wante itam diggante nappkat yi nekk ca diwaanu Saint-Louis ak ñi nekkee ci yeneen gox ci diwaanu senegal boobu la ndaje sax jot nañ cee signé ab accord de partenariat ngir loolee mën a antu ci nu mu gën a muccee ayib ca diwaanu HLM Grand Yoff fii ci diwaanu Ndakaaru nemeeku ngeen ndox muy bal boo xamante ne day ball ci mbedd yi fees dell ci jaarukaay yi loolu nag moo tax ba askan wi mer ba futtu de saako rek ci kilifa ñu ñëw wattu leen ndaxte loolu lay yàgg na lool te itam seen wér yaram mu ngi nekk ca guuta jamono ji leeral yi ak suñub ndaw ndey faatu Diop ci yaatal xibaaru bitim réew ak xibaar yi ngeen wàllu tàggat yaram mbokk yi moom fas yéene loon bi le euh, moom fas yéene buur bi la jotaay bi simi la ñu yaatal xibaar yi mbokk dañu koy tàmbali ak wàllu politique leader bu gëm sa bopp bu Bougane Gueye Dany nemmeeku ngeen ni moom moomu la rek daanaka jot naa rek li nga xamante ne bii moom moo di euh, lu ñeel euh, investiture bi nga xamante ne bi rek def na ko gannaaw ba ñu ko euh, defee muy candidat ci élection présidentielle bi ñu jëm moom nag démb la daal di amal ab ndaje. investiture ci noonee nag daal di fësal ne dina fexe lépp loo xamante ni bi rek soxal na programme am mu daal di ciy dëxëñ lu ñeel wàlluk démocratie ñu delloosi ko fii ci diwaanu Sénégal moom Bougane Gueye Dany ab téere la bind daal di koy tënk ci ñaar téeméer ak juróom-ñeenti xob yoo xamante ni nee na loolee bu ñu ko tënkee ba daal di koy doxal doon na luy indi réew mu naat ci diwaanu Sénégal Bougane gay Dany ñu teewlooy kàddoom Ramata Sarr ak Bassirou Faye ñoo ko taataan lii mooy xaatim lii mooy la recette bi nar a libérer ce lii incha allah lépp loo xam ne yéene la ci man ci ma bëgg defar Sénégal bind naa ko ci téere bi téere bi bi ma koy bind ay borom xam-xam ñoo ko xel ay borom xam-xam ñoo ci ànd ak man lépp lu ma ci bind lu ma gëstu la dëkk bu ma ci tudd fu ma teg sama tànk la fépp foo xam ne dem naa fa wax naa leen ne su ma yéene mooy transformer Sénégal transformer Sénégal delloo si yaakaar ba yéen la jeunesse ngeen xam ne réew mi lépp mu ngi fi réew mi mën nañu ko defar dama bëgg confier leen benn secret li war a defar réew mi ñetti président ñeenti président romb nañu fi yëf yi du njàng mu rëy yëf yi bëgg sa réew la yëf yi yéene sa réew la yëf yi yërëm sa réew la courant bu cher bi dafa doy feebar mënoo faju dafa doy kumba am ndey ak kumba amul ndey gi ci réew mi. mu ngook di Bougane Gueye Dany moom mooy leader bu gëm sa boppal ci politique la ñuy desandi ba tey ak leader bu mouvement bu ñu dippee action moom Papa Coly Faye ñu koy wax Go Faye démb. doon amal ab ndaje ak taskatu xabaar yi daanaka rek jot naa wax ni dina gën a yëngu ci wàllum social politique sociale kon ci diwaanu Sénégal. moom nag li muy sàkku rek mooy kilifa yi nekkee ca gox yi ak ñu daal di gën a mën a ci jàppale ñi nga xamante ni bi rek ñoom ñu la seen loxo jotul seen gannaaw rawatina ñi amee laago ci euh, gox yeeg goxaat yi ci assemblée générale boo xamante bi amaloon na ko nit ki samedi démb gile moom nee na dina jàppale Amadou Ba di candidat bu benn bokk yaakaar moom Pape Coly Faye ñu teewlu ko ci micro Alamine Senghor. dooy wooy laago yi nag c'est une la population bu am cette année si si budget bi nga xamante ne moom lañ voté pour 2024 boole wuñ leen si sóoru ñu leen te c'est des associations bien euh, formées en bon et form forme xam nga loolu sàggan la wala nit ñi nga xamante ne ñoo jiite mairie parcelle Assainies amuñu xam-xamu xalaat ne équité sociale moom mooy moom mooy développement dëkk bu ñu ci nekkee amul xaaj xaaj ak seen ñëpp a war a gis seen bopp si réew mi le président Amadou Ba mooy sunu candidat il a bon profil c'est lui qui est le Euh, euh, bi nga xamante ne bu ñu ko falee cinquième président du Sénégal ndaw ñi man goo fay dinaa nekk seen interface ñu am liggéey mag ñi man goo fay dinaa nekk seen interface ñu euh, defal leen li ñu bëgg handicapé ñu gën leen jógal bis ni ki tey à partir de demain du ñu nobatu dañ koy assumer dinañ dem wax ak ndaw ñi fekk leen fi ñu toog toog ñoom si kafe yi Amadou Ba comme candidat et puis incha allah yàlla may ko ndam le 25 incha allah mu ngoog mbokk yi bu ñu noppee ci loolee dañuy àddu ci wàllum euh, social wax ci diwaanu euh, fa li nga xamante ni rek moo di Grand Yoff HLM foofee ndox mu bon boobee ngeen di seen nekk na luy ball ci mbedd yi dem ba sonal askan wi fay dund ñi nga xamante ne bi sax ñoo yore waruwaay daanaka lu ne la ñuy ngir mën a jàll ci yoon yooyu ni mel ndaxte loolee nekk na luy ball te yàgg na lool askan wi mer ba futtu di sàkk ci kilifa ñu ñëw wattu leen ndaxte loolee mën na gàllankoor seen wér yaram Ndeye Fatou Diop Cheikh Tidiane seen reportage mooy laajte quoi ndax ñun si nawet lañ am xaalis nañu ñëw dimbali jeunes yi bëgg nañu liggéey ñi jàppale ñuy bëgg rey dañoo sonn dafa jeunes yi bi ñu ko mënoon defar leen sax woo ay jafe-jafe la ñu dëkkee ci aslem Grand Yoff di jànkoonteel boobaak léegi mu mat juróom-ñetti weer li ko waral nag di ay ndox yu taa yoo xamante ni boobaak léegi mu ngi fa boo xoolee depuis avant tabaski ba léegi boo calculé boo léegi war na def ay 9 mois ndox bi ngi ci koñ bi boo xoolee si koñ yi yenn jeunes yi boo xoolee seen loxo yëpp a waga te man lii mënu ma ko maanaam mënu ma ko nangu xaw ma nu mu demee noonu bu dee ñun tam si nawet lañ nekk ñu wax ñu saa yuñ génnee si tali bi gars yi indi ñu saa yuñ génnee si tali bi ñu jàppanteeg alkaati dañoo sonn si jàppanteeg alkaati yi parce que ay nit lañ comme ñun même bu dara ñun ay frère lañ mais lii dafa métti quoi lu ëpp huit mois ñu koy dund nii lii am na ay jamono mus nañ si tànk ndox tànk si pot ay pot tànk ci lu bëri yóbbul ko monsieur monsieur le maire teg ko foofu la mujjee am fuite monsieur le maire fa woote police def retour gars yi mujjee ñu andi ay plainte ba ñu yóbbu sama benn copain moo tax ñu ne leen bu dee loolu la na ngeen bàyyi ñun ñii fan yële jàll si ginnaaw ndox bi génnoon na fi côté bee ba nangu benn kër. ca noonu ñu ngi woo autorité locale yi ngir ñu wut ci saafara. man daal benn benn parole laa may sànni état état na jël ay matuwaayam woo maanaam ñu mun a ñu liggéey ko jeunes yu nekk ci koñ bi sonn nañ trop xale yu ndaw yi surtout xale yu ndaw yi l'âge de 3 ans ba 5 ans boo xoolee ñëpp am nañ ay waga feebaru guddi yi ñuy wax waga. fii la ñuy segee café fii la ñuy defee yëpp suñu boom suturaal ñu sax léegi ñu fiy taabu taabu di fi jaayee café di fi togg ay lekk mais xool gëj nañ fi jaay normal bu ñu jaayee tey suba du ma mën a jaay su ma jaayee tey suba du ma a jaay man waxewu ma sama côté place sax mais xoolal maire bi en face place am la yor di ko loué di fay chaque weer mënatu fi jaay mu client yi mënuñu ko ñëw rek dugg loolu impossible ndax lan force bi génn tali bu ñuy defar xaw ma BRT la xaw ma route passant xaw ma lu mu doon mais lii daal neexul ci xol mu nekk ay jafe-jafe yoo xamante ni ña dëkkee boobu boobule diwaan ñu ngi koy jànkonteel boobaak léegi mu def ay weer ba tax na daal dinañ mer ba futu ci noonu nag ñi ngi woo ñi nga xamante ne ñuy autorité yi ngir ñu wut ci saafara Ndeye fàtte Diop ñeneen ñoo xamante ni itam soxla nañu ah, ku leen dimbali dañoo mer ba futu itam muy waa Kayaar ñoom nag nee nañu benn usine bu ñuy wax Barna Sénégal di yëngu ci coppi ay jën nekk na loo xamante ni bi rek gàllankoor na seen dundin ndaxte xet gu bon ga ñuy noyyi nekk na luy gàllankoor itam seen wér-gu-yaram ñoom nag nee nañu na usine bi tëj ràpp ci nu mu gën a gaawee lu ko may rek mbir ma dinañu koy jëmale ñu ko foogeewut ñu lu ci moor Mbeng di si yore seen kàddu ñoom collectif taxawu Kayaar ci micro Maniru Mbeng ku ne xam na ne usine bii nii li muy dégager fi mu nekk nii loolu kenn mën a dund ndax xet gu bon baaxul si wér gu yaramu doomu aadama bari naa li muy lor fi mu nekk nii kenn mënu kaa ne chauffeur bi wax na ko léegi suñu mag ñi ni ñuy deewee fi mu nekk nii ne xam na ni kenn xamul lu mu doon li fi de ay feebar kenn xamul lu mu doon li fi de ay lompañ ay gune yu juddu malformation kenn xamul lu mu doon ay avortement jigéen ñu ëmb bay yaakaar mu mu deñ kenn xamul lu mu doon ay jeunes yu toll seen liggéey di am tuberculose di sëqat kenn xamul lu mu doon waaye est-ce que ñun dañuy continuer di toog ñu naan kenn du fi waxee kenn du fi defee te ñu di ay citoyen sénégalais yow maire nga taxawoo commune bi yëpp ñu daje ne bés ni ki day xeex bi moomatu leen que may jiitu ngeen topp sama ginnaaw mais waxuñu nga ñëw topp suñu ginnaaw. ñu ngi interpellé le président de la république son excellence monsieur le président Macky Sall. na ñëwal boppam Kayar xool liñ koy wax lan la. jël ab dogal. jële fi usine bi ñëpp dégg nañu ni dañoo débouté tribunal combat bi jeex na mais moom mi ñu séqal combat xam na ne combat bi commencé gul sax te bis bu production ordonnance boobu ñuy xaar génne dañuy dem ak moom si fond de dossier egg fond de dossier loolu gars yi naa duñu egg ak moom deuxième prolongation première mi si fond de dossier ñu taxali ko ak Barna incha allah mu ngoog kàddu yooyee bàyyeekoo ci collectif taxawu Kayaar ay kàddu yi naxasa xandang kese la du kàddu nag ki nga xamante ne moo di Talla Diagne Gueye moom moo ko xamle moom mu yore kàdduk euh, boobu la usine di Barna Sénégal nee na ñilee seen kàddu yi ñu yëkkati nekkuñu lu dul di lëndëmal xelu askan wi loolu moo tax mu jël ab kàddoom dénk ko suñu ndaw mu niru meng ñu teewlu ko. lii nañ def xam nga tamit wax ni wax usine bi nekk fii depuis deux mille 2020 ba léegi muy produire ay nit jóg ni usine bi daal dafay war a jógee. bu dee nii la Sénégal di demee fu Sénégal jëm. xam nga feebar dafay indi mais nañ la wan kan moo feebar ci usine bi parce que man depuis le début maa ngi dëkk Kayar mais mosumaa gis ku ci feebar ngetug jën bu doon feebaree mool yëpp dee nañ usine ab jën jën lay xeeñ usine parfum parfum lay xeeñ usine engrais engrais lay xeeñ ñi nga xamante ne ñoo yor environnement Sénégal à tout moment dañ fiy ñëw di xool usine bi ndax mi ngi respecté normes yi déet yaakaar naa bu usine bi respecté wul woon normes yi duñ ko bàyyi mu fay te foofu ñuy tuur ñu tuddee ko lakk ak nuñ ko mën a tuddee mairie bi moo ne fii ku fi sab douche fees fa nga koy tuur ku yor ndox moo xamante ni amoo foo ko du fóoti tëg looy mën a tuur tuur ko fa usine bi nag ci dëkk bi la ne di ay droit euh, ndox mu jël la yor foofu la koy tuur maanaam lépp loo xamante ni yoon la pare nañu pour ànd ci ak état mais pas ay nit ñu toog fële rek naan nañu def lii nañ def lii xam nga tamit wax ni waa Kayaar mbubboo ko taxawu Kayaar man Kayaar laa man taxawuñ ma usine de farine de poisson dafay étude installé wu légalement ndax amu fi parce que man mii ba ñuy door maa mu ngook di taala Diagne Gueye moom moo yore kàdduk maanaam communication bu usine boobu lay di Barna Sénégal mbokk yi la ñuy wax leneen ci xibaar yi dem ci diwaanu Fatick foofee gis ngeen ne taalibe yu bare bare ñoo nekk ci mbedd yi rawatina ci daara yi te gis nañu ne seenub dundin ak seenub nekkin nekk na loo xamante ne bii rek lu yéeme may la ndaxte lu ne la ñuy jànkuwanteel ci jafe-jafe loolu nag moo tax ab kuréel goo xamante ni bi dafa ñëw ngir dimbali leen daal di def loo xamante ni bii rek lu mucc ayib la ndaxte ko ñeent fukki fan ak ñeent di 44 jours yoo xamante ne bi bés bu yàlla sàkk dina waajal ay ñam daal di koy séddale lu toll ci ñeent fukk ak ñeenti daara ngir taxawu leen loolu nag moo tax ñu ne na ci kilifa jàpp bu ko defee seenub liggéey gën a mucc ayib ba ñëpp ndaw Omar Ndiaye ci yaatal la ci Fatick daara yu bëri dañuy am jafe-jafe faju ak lekk dara waralu ko nag lu dul taalibe yu bëri bu ñu sukkandikoo ci Matar la moom mi nga xam ne jàngalekat la ci diwaanu Fatick. ci parce que ordonnance day xaw a seer euh, boo yoree mbooloo bis bu nekk dina am ku feebar wax ku lekk du jàng ku lekk du liggéey. xam ne ni mel tax na association bii di ayam taalib nag daal di jël lu toll ci 44 jours yoo xam ne ni da ko doon togg ngir rek yóbbu ko ci daara yooyee. tey bés tey tey jii togg neen 44 añ yóbbu ko si ñi nga xam ne ñoom ñooy sëriñu daara yi pour jox ko xale yi ba ma si waxtaan ak moom moom tamit mu rafet lu ko torop mu rafetlu ko waxtaan seeg man ne ma dinaa si def lu ma si mën jox lu ma mën waaye nag li may ñaan mooy man du ma si fi rek gën a jàppale nag taalibe yi nga xam te ñoo nekk ci diwaanu Fatick tax na bi association bëri na ay yoo xam te ni def na ko ci région bu Fatick. ñu def nag bëri na parce que jàngukaayu xale yi doon nañ lu ñu ëppal solo. mooy mbaar yi nga xam ne ñu ngi koy tabax parce que xale yi dañ doon toog di jàng si naaj bu tàng ñuy gis wala ñuy toog di jàng si si si suuf yi euh, sàkket te dama naan xale yi nga xam ne ñoom ñooy jàng alxuraan ñoom ñoo méritoo classe yu baax yi ñoom ñoo mérito école yu baax yi ñoom ñoo mérito itam lal yu nooy ci atum nag 2018 la ñuy créé bilib association ñoom ñoo ñi nga xam te ni ñu ci ëpp ci ñoom ay ndaw lañ dëkk ci diwaanu Fatick seen bëgg-bëgg nag mooy fexe rek ba daara yi nekk ci Fatick taalibe yi moom seen condition ne condition yoo xam te ni nii day mucc ay ci Fatick. jërëjëf Omar Ndiaye dañuy naan coow dem ca diwaanu Ndar Géej dëkku maam Kumba Bang foofee ngir fexe nappkat yi nekkee ca diwaanu Kayaar Fass Boy get Ndar ba ci Mboro daal di am jàmm seen biir muy bëgg-bëggug CLPA bu dëkku maam Kumba boobu boobule loole moo sabab ab lël gu ñu amaloon ngir waxtaan ci naka la ñuy def ngir loolee mën a antu ci yoon itam jot nañ cee xaatim ab accord ngir bu ko defee nappkat yi nekkee ca Saint-Louis ak yi nekkee ci yeneen goxe ci diwaanu Sénégal mën a gën a ñoŋal seen liggéey ñu teewlu ci Fama Sarr moom nappkat la bokk itam ci CLPA bu Saint-Louis kàddoom Adama Sall ak El Hadj Guèye ñoo ko taataan na suñu borom dogal na ni lii ñëw na ba pare mais tey daje nañu fii ci ndar communauté bu ndar recevoir CLPA bu ndar recevoir euh, ñi nga xam ne ñoo jógee kayaar ñi jógee Jogo ñi jógee Mboro ñi jógee Fass ba Yoff pour ñu daje fii ci ndar nag daal tënk benn bataaxal boo xamante ne dina fexe ba dëgëral suñu kóllëre dëgërël suñu ànd ba nga xamante ne lu fi amoon tey ñu gas ko suul mu bañ fi dellu siwaat mais am na itam lu am solo loo xamante ni il faut loolu ñu wax ko ak suñu ay autorité parce que bi jàmmaarloo amee yàqule amoon na te yàqule boobu am na ci côté Kayar mais am na lu bëree bëri boo xamante ne ci côté Ndar la dal te ñooñu boobu ba léegi fi ñu waroon jaar lépp jaar nañu fa buy recensement buy leneen lépp def nañ ko mais boobu ba léegi ñu ngi déglu itam te gisuñu kenn te wax dëgg yàlla nag dañ leen war a gestu parce que mool bu dem di liggéeyi yeewu suba jàmmaarloo am alalam yëpp tàkk yàqu tey ji mu ngàbb loxo keseem te campagne de pêche bi mu ngi ubbi état yi pour ñu dellu si xool ñoo ñu nga xamante ne war nañu leen dàmp vraiment ñu ñu ñu ñu dàmp leen mais. mu ngook ñu daal di àddu leneen bokkee ci jotaayu xabaar yi salte gi ngeen di faral di nemmeeku ci gox yeeg goxaat yi du yàggat di dara ñu daal di koy gis mu deex jeex tàkk ci diwaan yu bëri ci diwaanu Sénégal li ko waral mooy SONAGED mi ñu dénk wàllu bale mbedd yeeg lu ci biir daanaka ñoom ñaan nañu dañoo lancé programme boo xamante ni bi rek ñu ngi ko duppee ak Sina lépp rek ngir mën a fexe gën a ñoŋal seen liggéey lool nag euh, dinañ ci waxtaan lu bare bari wante itam ci teewaayu ministre bi ñu dénk wàllu urbanisme logement ak hygiène publique di Abdoulaye Seydou Sow ñu teewlu ci euh, Massa Thiam moom moo yëkkati kàddu yi di mel ci micro suñu ndaw ñaañaka waaw tey dañu ñëwoon di présenter plan bi agent yi nga xam ne ñoo nekk ci biir société bi ndax defoon nañ ko jëmale ko ci partenaires yi ci banque yi ak société yi ñuy liggéeyal tey nag dañ ko doon expliquer agent yi nekk ci biir société bi pour ñoom ñu xam plan bi lan la leen mën a plan bi nag ci ponk rek ñoo ko wund mooy euh, la partie cadre juridique réglementaire maanaam ni ñuy liggéeyee jumtuwaay juridique yi ñu mën ko am ñaareel bi mooy ñu fexe ba nga xam ni mbalit mi amal ñu njëriñ maanaam ñu koy segg yóbbu ko aussi ci ay usines pour mën ko transformer ñetteel bi mooy système de nettoiement bi ñu fexe ba yokkal ko doole mu gën a performant ñeenteel bi nag te mooy bi ci ëpp solo mooy wàllu nit li tubaab di wax capital humain ñu góorgóorlu aussi ci salaire agent yi seen formation seen encadrement seen i plan de carrière donc yooyu yëpp lañ doon expliqué tey lépp lu ci stratégie de gestion des ressources humaines pour agents yi mën ci gis seen bopp ñoom itam ñu gën a mën a accompagner plan Exina bi nga xam ne am nañ yaakaar ni dina amal réew mi njëriñ fileeg cinq ans. am nañu médecin d' entreprise mais léegi dañu am ambition pour ñu am centre médicaux nga xam ne dinañu am sax foofu ay capacité d' hospitalisation yu ñëw tegu ci assurance bi nga xam ne déjà am nañ ko carte d' assurance en relation ak assurance bu mais bëgg nañu dem plus daal di indi centre médico social ñaareel bi mooy. comme ñun suñu lim xaw na takku macha allah bëgg nañu aussi ñu potentiel bi nga xam ni am na ci njaboot googu nga xam ni mat na 16000 personnes ak seen i doom ñu xool nu ñu mën a créer une fondation sport mais suñu ministre bi nga xam ni moom responsable ci sport au niveau national daf ñu ñaax nañu nañu tàmbali ak euh, football bi kon incha allah nañ jéem a commencer par euh, Sonaged sport mais jiital ci football bi ngir ñu mën a bokk ci championnat yi incha allah. mu ngoog fexe ba mbënd mi daal di jeex tàkk ci réew mi wante itam kenn dootul dëkkati ci diwaan boo xamante ni bi rek day faral di taaba fees dell loolee bëgg-bëgg la boo xamante ni bi rek ñu yëngu ci wàllu startup ñoom ñoo ko daal di amee wante itam seen ndaje bu lépp rek ngir fexe naka la ñuy yoree ndox mi ba dootul sonal benn askan ci diwaanu Sénégal Madické Cissé moom mooy directeur bi yoree lépp lu jëm ci wàllu prévention gestion inondation nekk GIP euh, gestion intégrée des inondations fii ci diwaanu Sénégal ñu teew lay kàddoom projet de gestion intégrée des projet bi lenn rek moo ko tax a jóg mooy xeex lépp luy mbënn ci biir réew bu Sénégal dàkkal ko fi loolu nag dafa am ay pàcc yu ci am solo yoo xam ne benn bi mooy communication maanaam waxtaan ak askan wi ci jéego yi nga xamante ne ñu ngi koy teg bu ko defee li nguur di jël di ko def ci ay drainage ak li ni mel muy wax ak askan wi ñu moytu dëkk waay yi nga xamante ne. ndox yi moo ko moom maanaam li ñuy woowee zone inondable ñoo ngi si jàngat nag bu baax ànd si ak ay nit yu xarañ yu am xam-xam ci li mbir mi mais léegi ñu bare bu ko defee ñu tànn tànn boo xamante ne bu weesoo li si topp mooy génne xaalis financé ko buñ fa yeggee nag dañu waxtaanaat daje gën leen leeral ci boobu la mbir. c'est ce départage là qui permettra de donner le meilleur en le supposé meilleur une enveloppe plus conséquente. mu ngook ci loolee la ñuy desandi ndaxte ni yëngu ci wàllu startup ñoomee am nañu mbégte ci jeego ya nga xamante ni bi rek def nañu ko ngir fexe li mën a antu ci nu mu gën a mucc ayib jo soow ma wax ci seen kàddu ñu teewlu ko. wuutu yi fi nekk ba pare tey. les startups ne remplaceront pas ceux qui sont déjà là qui font très bien leur travail mais pourraient apporter. startup euh, ñu wuutu yi fi nekk ba pare tey def seen liggéey bu baax liggéey liggéey bu rafet waaye dinañu gën a ñoŋal. gën a yeesal liggéey bi start-up yi tamit eh, dinañu gën a gaawal eh, li nga xam ne mooy soxlaay nit ñi loolu eh, la ñuy wut sax ndax ndax nag temps amut ah structure yu mag yi seen liggéey dafay faral di yéex dund nañ ko ak euh, mbas mi start-up yi ci jamono yooyu ñoom ñoo taxoon liggéey bi gën a gaaw ci ndimbalu euh, nguur gi ndax nag nguur gi mu euh, kenn mënta dem te taxawuñu sa wet. vraiment appuyer de manière institutionnelle tout cela pour que on puisse proposer très rapidement des solutions. mu ngokk di Jo Sow yore kàddu yi start-up yi nekk ci diwaanu Sénégal kon mbokkee ci boobu lay euh, waxtaan la ñu daal di buuree pàcc bu njëkk bi ci jotaayu xabaar yi nes gis ñu dem ca biti réew xibaaru bitim réew yi mbokk yi dañu koy daal di tàmbalee ca li nga xamante ni bi rek moo ñeel Georges Bandebenter moom mu ngeen di seen noonu le dañu ko tegoon loxo ca diwaanu euh, Libye ci weeruk novembre atub 2017 gannaaw loola itam moom daanaka rek jot na ci li nga xamante ni bi rek moom mooy euh, ñu bàyyi ko ak afiam maanaam daal ñu libéré ko moom nag dañu ko jaayoon groupe bu ñuy wax euh, groupe bi dimbali wàllu ko islaam ak itam ñi yëngu ci wàllum diine musulman kon nag ci diwaanu Sénégal moom nag ci diwaanu Mali ñu baal ma kon nag euh, daal di ko yóbbu euh, ci diwaanu Mali googule mu mel ni rek ne euh, nekk na mbir moo xamante ni bi rek dañ cee jàppoon itam ab nasaraan soo xamante ni bi rek ñu ngi koy woowee Olivier Dubois daanaka rek ñoom démb ci gaawo gile yam fukki fan ak juróom benn ci weeru décembre lañ leen may ab aafiya daan leen leen ni transmettre aussi ñi nga xamante ni rek ñoo di autorité algérienne yi nekkee ci frontière ak diwaanu Mali bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ni bi rek fondation sud africaine bi ñu dippee gift of the givers ñoom ñoo ko daal Euh, fësal euh, gannaaw ba nga xamante ni bi rek am na ab médiation boo xamante ni bi rek moom def na ko ci depuis atub 2018 xibaar itam ci diwaanu Nigéria foofee la jëm wax ci ñàkkum kaaraange goo xamante ni bi rek mooy sonal ñi yëngu ci wàllum paj mi loolu nag ci aljuma yi barki démb gi yemoo ko fukki fan ak juróom ci weeru décembre dañoo nemmeeku ay eh, jàmmaarlo yu tar yoo xamante ne ñu ngi ko eh, nemmeeku rek ci dëkk bi ñuy wax mi nekk ci bët wala penku dëkk bi ñuy wax eh, Zamfara nekk ci itam ci réew moomu lay ab kuréel goo xamante ni bi rek dafa yëngu ci wàllum paj ñu dubbee ko médecins sans frontières ñoom nag ci noonu a yóbbu fukki ñoo xamante ni bi rek dañoo loru ci boobule euh, jongante nga xamante ni bi rek rawale nañu leen ci dëkk bu ñuy wax euh, Goso foofee nag gis nañu fa ay tiir yoo xamante ne bi rek tax na ba mbir ma daal di tàggatémbe l'armée bi nekkee ca diwaan boobule ak itam beneen groupe l'armée bu faree ci wàll ko Nigéria ñoom nag ñoo daal di euh, def ay jéego ba bu ko defee rek ñu daal di mën a dimbali askan wa nekkee ca bërëb ba gis nañu fa ay xeex yoo xamante ne bii ba ngi sukkandiku ci kii di Hubert Kachama moom di coordonnateur médical bu Médecins sans frontières ca diwaanu Nigéria nga xamante ne bii kii di Christina Okelo moom moo ko daal di jot ci euh, kàddoom mu wax ni ñoom ñu ngi def ay jéego ba bu ko defee rek ñu daal di mën a jege bu baax a baax ay bërëb yoo xamante ne bii fa la ñuy faral di fajee ñi loru ci yooyu le euh, guerre mbokk yi loolee moo buur xibaaru bitim réew yi les gis ñu wax ci tàggat yaram xibaaru tàggat yaram ci banlieue bu dakaar Dakar Pikine Guédiawaye jàpp gox yi nekk ca wet ga gis nañu ne ay bërëb yoo xamante ne bi fa la ñuy faral di defee ay tàggat yaram nekk na bërëb yu daal di nekk ci anam mu jéggi dayoo ndaxte yorin wa jaarut yoon salte ba itam ne fa gàññ loolee mooy mëbët boo xamante ne bi wala sax artu goo xamante ne mu ngi bàyyeekoo ci kookee nga xamante ne bi rek moo di euh, Mamadou Souleymane Ismaïla Niang moom mi nga xamante ne bi rek daanaka moom moo jiite association nationale de la presse sportive ci banlieue bu Ndakaaru loolee daal muy sàkku ci kilifa ñu daal ci indi saafara ci nu mu gën a gaawee ñu teewlay kàddoom da ngay fekk ni banlieue suñu stade yi boo leen xoolee li ci bëri euh, fu ngay gën a jéppee sa bopp mooy toilette yi boo duggee ci toilette yi da ngay fekk ni dafa salte fees dell xeeñ xunn kenn mënu ko utiliser. Euh, bijou bi dañ ci def ay milliards te euh, problème bi ñu am mooy ay nit yoo xam ni doy nañu ci qualité ci quantité ñu former leen ñu mën a maintenir bijou yi loolu mooy suñu jafe-jafe moo amul. boo xoolee ci saytu fii ñu nekk tey jii ba tey jii may wax ak yow amul directeur. Euh, amul suffisamment ay nit yoo xam ni mën nañ nettoyer fii nii euh, ba ma fay mujj di def euh, entretien def reportage ci loolu jigéen ñi ma fekk fii bëriwuñu ay benn benn lañu. bi ma leen laajee da ngay gis benn benn jigéen boo xam ne mooy def liggéeyu juróom ba juróom-benn nit nga laaj li ñu leen di fay ñu la ñeenti junni ci budget bu toll nii ñu def fi ay milliards tey ñu waroon jël ay nit yoo xam ne lu mu gàtt gàtt war leen mën a fay cent cinquante mille ñu ñu def liggéey mais loolu amul moo tax suñu bisu yi bu ñu ko bëggee maintenir il faut mu am ay nit yoo xam ne dañ leen di tàggat former leen nga xam ni ñoom loolu rek mooy doon seen seen wàll mooy maintenir stade maintien moo amul loo mooy suñu jafe-jafe. mu ngoog Mamadou Ismaïla Souleymane yaa ngeen doon teewlu léegi ay kàddoom sax ca la muy sàkku doon na loo xamante bi ñu yëngu ci wàllu manager ci Sénégal ci wàllu ko naka la ñuy def ngir lépp luy jumtukaay ñu ciy faral di tàggate yaram ñu mën koo ci war a jël bu ko defee lii mën a antu ci nu mu gën a gaawee kii di Samsidine Diatta moom moo jiite ASMAS ñu teewlay kàddoom donc tey jii mbégte bu am bu bu baax laa am parce déjà euh, thème bu ñuy développé tey parce que euh, xam nañ ne tey jii pour que performance am il faut ñu am ay stade ay infrastructure yoo xam ne yu baax yu qualité yoo xam ne dafa méngoo ak ay infrastructure yu ñuy def si bitimi réew donc yooyu infrastructure bu buñ ko amee dinañ am ay résultats yu baax mais defar infrastructure benn affaire la mais eh, garde ko te maintenir ko euh, kii ko bu baax toppatoo ko beneen affaire la donc loolu moo tax tey jii ñu toog fii ñu jël baaram bi joxoñ ko fu metti comme ça ñëpp xam ne infrastructure dañ koy defar mais il faut ñu gérer ko pour que bu ñu ko gérer bu baax euh, ñu mën a am ay performance à long terme. mu ngook moom mi di Samsidine Diatta njiitalu ko ASMAS di association sénégalaise des managers du sport fii ci diwaanu Sénégal kon nag loolee mbokk yi moo buur bi la jotaayu xabaar ma amoon mbégte. doon ko faram fàccee jaajëfal bu baax baax yéen ñu doon teewlu ci leeral tv wante itam ma dem sonn Njaay mi farewoon ci réalisation bi Alioune Badara Cissé ak équipe am ca régie ba yi xibaar yi daañu dikkaat 19h ci nasaraan lay doon ak Ibrahima Khalil Jëmme jërë ngeen jëf